li xew ci jamono ji te fan yëpp ñu koy coow mooy weer bi yëpp muy tuuma ju njëkkati teg ko ci deru gor deru julit deru taalibe bu dëkk ci réew mi te lépp tegu ci sos nga war a sàmm ba war a jëfal war a xontu jur gi ñu bañ xiif bañ mar waaye nga yeewu leen joxoo luñ leen leen lekk luñ leen luñ naan teg leen ci condition yu bon ku ko def ku ne day yaakaar yi dina la jëkk te la ba noppi nga bëgg a toroxal doomu aadama yi ku yàpp ne ku jàpp da nga mën ngaa daan nit adduna daan ko nax sa bopp suñ réew mi nag man am naa ci jàqare am naa ci tiitaange am naa ci tam ak jaaxle ndax réew moo xam ne dañu quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañu waaye am kenn ku leen jiite ne ca bopp ba mënoo wax jullit la mënoo wax lan la te njiit tànn waaye njiit loo xam ne dafa soxot ñàkk njariñ ba noppi di xeex diine kuy tànn wuroo tànn kooku bu la ko yàlla nattoo nag da nga ko muñ te day mel ne ñun Sénégal yàlla noonu na tool loolu ndax soxat weesu cim réew jiite ko ñuy wax ay opérateur économique wala ñu leen di wax ay homme d'affaires teen bañ daan naane te joo ko nga war leen ko defal moo di forage nga branché ay tuyau fu ne ndox ma jote fa ñu naan buñ bëggee togg togg buñ bëggee sangu sangu defoo ko waaye nga bëgg a arrangé mooy tëj seeni compte ba mënatuñu am dara nga nangu lépp téye ku ci amoon te jënd ko nga nangu ko wala nga xaaj ko te doo ko dugal foo xam ne njëriñu réew mi la sa soxlay bopp nga koy dugal wala nga jox ko say bokk loolu iñaan féetewu ko kaw moo tax opérateur économique yi sonn nañ homme d'affaires yi son nañ ñaan weesuwul tam Sénégal yi nga xam ne ñoo liggéey ba am seen paas dem biti réew di fa liggéey di fa yëngu te loo am doo ko mën a dugal ci réew mi wala nga ci réew mi war am xaalis bu la jógee réew boo xam ne ni pour pour lewal doom nga bu koo jàllale si te doo ko mën a doo ko mën a dugal doo ko ci mën a jot. ab million sax boo ko dugalee daal laaj foo ko dugalee foo ko jëlee foo ko nangam nangam bu dee quatre millions wala cinq millions waxi noppi kon loolu ñaan féetewu ko kaw ñàkk ñëw te féetewu ko kaw bañ diine gi nag moom kenn nattablewu ko ndax ñaari at yépp ku fippiwul sa sa jumaa daa tëj daara alxaar nga boole jëng sëñ daara yi jàngale di di leen tëj ci kaso bi ràpp ay juróomi at ay ñetti at ay fukki at di leen tere yalwaante dimbale woo woo leen fenn loolu ki ñaan féete wu kaw njiit nag su fekkee dafa dëng jeng ay àtte katam koo dëng yéex jag te kat képp koo xam da ngay àtte te àttewoo ci alxuraan suñu borom nee na kooka ab kàccoor la ab yéefar la ab naafeq la te kat ëllëg suñu borom dana àtte te nag moo gën a jub moo gën a maanu ku àtte fii ak ndëng àtte fii ay caaxaan. da nga xam ne suñu borom dana la àtte ëllëg te boobaa da nga am gàcc da nga am kersa da nga rus kon réew mi ñu ngi jafoonteeg ay ñu ngi ñu ngi ay coono te kenn tegu leen ko mu njiitu réew mi fi nekk ba muy bëgg réew mi de dawul jóg Tuuba te fële daan rap-rappe toog ci suuf. di sujjóot ragal ko fa lool ba ko Abdoulaye Wade bëggee tëj fii la ñëwul ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara boobu moo fi nekk di jooy daanaka alañ Bara dox diggam ak gàcce googee ba tey yeesu ko waaye tey jii de la ragaloon mi koy def bori di leen toroxal di leen duma tak kilifa ko ko ñaan mu làkk te ba de Touba gi ñëw ci kilifa yi ñu dox digg ma gàcc waaye nag day mel ni moom kilifa ku ko ñaan mu gàccal la ba ñëpp kenn sawratu koo ñaan kon jiit li mel noonu ku am yàlla natt na la waaye nag yàlla du tëj bunt tëj fi wàcc bi do déedéet leer na seen complété yi ndax ñoo yor lépp bëggoon a toroxal waaye nag sun borom kum nar a dimbale kum nar a taxaw kum nar a su suturaal ab jaam lott ci toroxal la ndax tuuma ji ñu teg Sonko di dara wéru ci te lépp leer na bëgg koo gaañoo tam moo tax pexe yi doon def tey jii yëpp ñu def ko waaye yàlla leer na lépp ku am sañ-sañ rek am doole jàpp ne yaay buur di bu mi ba loolu neex nga def bisimilah yàlla gëmul nelawul te moo fi sax gàcce nag baadool lu ko jub mukk mukk mukk mukk tàggu ca te kuy bëgg a dee ci xare lu mu jiit xeeb ko damaa yaakaar nag kuy bëgg a jeexal daa war rafetal waaye waroo ñaawal te kii fi nekk day rafetul dara rafetul dara comme dañ cee nekk di ay jullit di ay sénégalais luy defar luñ ca war nañ ko wax lu yàq luñ ca war nañ ko wax ñoo ko waxoon ci xuddaamul xadim ni dana wax ashadu an laa ilaha illa allah li ay julit kon lu ñu xam luy defar ci diine war nañ ko wax waaye lu ñu ci xam lu ko yàq war nañ ko def wax aslamtu nafsi itam doon ay taalibe kon lu yoon wi lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax luy defar suñ ko xamee war na ko dëkk ci réew mi nag tey Sénégal di si waxee kon nag réew mi lu ci war lu ci defar buñ ko xamee war nañ ko waxee yàq buñ ko xamee war nañ ko wax loolu tax nu yëkkati sunu kàddu suñ sunu turu bopp di xew tey di ko ñaa di ko ñaawlu di ko mettlu di ko ànd ak nag ñi bokkal pas-pas ñëpp ñi ñu bokkal bëgg réew mi ñi ñu bokkal dëkk ci réew mi di yàlla gàcce gu réer ci noonu. gu gàcce gu réer ci réew mi itam gàcce gu réer ci jullit yi ndax jullit jullit ay bokkam boo gisee ñu yëkk suñu kàddu nag lii ñu wax rek moo tax Sonko nag sunu dëkkandoo la noo bokk dëkk si kër góor gi ba noppi ñu xam ko ci ak ak gëm dara di jullit gëm dina di ko pratique jàngale ñu jàngale ay tubaab bokk nekk ci réew mi mu gën a leen lim gëm diine te gëmuñu ko di ko pratiquer moo tax suñ ko bëggee daane dañ koy tuumaal ci jigéen wala leer ngir gàccal ko waaye fii googu mu yàlla raxal na ko li ñu ko bëgg def nag daan doole daan jaay ko doole dong la te doole nag moom kenn dong kam mu yàlla doole ñuy sax yàlla joxe nguur moo koy xañ kon mbëkki ak ñi nga àndal xam da ngeen da fi jóg jóge benn nguur yàlla rek sax benn nga toog fi li nga war a toog mu jeex nga jóge fi wa illaa nga def gaaf ñu jëlee la fi te lii da gaaf la boo xam ne soo ci gëstoo kenn yéenewu la ko sunu sañoon da fi nekkee na fi Abdoulaye Wade nekkoon am yërmaande nangu kilifteef nangu ndigal loolu taal bi waaye yow bañ la falee te dee bëggoo pare nga waxoon ne Sénégal seen kilifa yi di seen pale ordinaire lañ loolu nag moo nekk sa xol ba tey jii yaa ngi leen di jéem a gàccal yaa ngi leen di jéem a toroxal waaye ak jafe ak jafe ndax ñoom kat liñ am mayoo leen ko te mënoo leen ko xaj diine leen ko may suñ borom leen ko jox jaarale ko ci diine kon diine leen teral islaama leen teral yéen nag àdduna moo la teral te àdduna comme teral ko ne bis la ñëw mu toroxal la maa ngi sant ñëpp di ko def ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah